jaajëf sama gars yi salaam jàmm ku mbedd ni ges baa ngi nuyoo jili der lay koy booy grand mais si takke më ne fu ne maa ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission préférée Galsen sama game sur Equivox TV tey nag ñu ngi fi dalal ay melomaan euh, ku si mel ni Dia Ibrahim di melomaan di producteur di hip hopper ak Big Santos sama droite moom it di melomaan bu gaay yi ràññee bu baax a baax ak sama waa ji Mr Fat from Elfa moom it melomaan la nekk tamit ménagère tey ñu fas yéene waxtaanee ci problème yi nga xamante ni hip hop seen mi ngi koy jànkonteel lu ci mel ni My King Do King jóge ci hip hop boobu noonu dem si démb ak tey luy différence bi diggante booy euh, démb ak tey lan mooy seen différence yooyu yëpp dinañ ci waxtaan incha allah rabbi mais avant amay xuus damay bàyyi Dia Ibrahima mu nuyoo après ñu ñëw si ñoom Big Santos ak Fat jaa yee salaamaaleykum ñu ngi nuyu gaa yëpp ñu bokkal plateau bi ñu leen di bëggee di jaar bu baax a baax a baax di rafetlu invitation bi waa te hip hop la quoi hip hop mooy def li waa ñu yamale ko fa après boo ko defee. Euh, Big Santos. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi bëggee gaa yëpp. Mhm. di nuyu ñu ma bi xam nga. di ji sama grand ja Ibrahima. Mhm. di bëggee mon ami borom Alpha Music. Mhm. di bëggee gaa waaw waxtaan la rek waxtaan mu moom bu jotee ñu sottante xalaat quoi. jaajëf joxal ma Fat Maïk bi. Mr Fat. ji nuyu naa la. salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñu ma bokkal plateau bi. ma mhm. di nuyu yow itam dalal bi dalal nii maa la ciy bu baax a baax. Mhm. waaw waxtaan la rek. yaa salaam nañ ci wax rek. <laughs> waaw yee tey tey du nga ma teel Maïk bi eh, ñu fas yéene dugg ci biir waxtaan bi nag Fat eh, avant may ñëw sax si king beeg doo king bi loolu dañuy dellu ci démb. lan mooy différence hip hop démb bi ak bu tay fat bon seen loolu moo dama ciy sawaru tontu en fait parce que différence am na différence bu rëy mhm. parce que boo seetee man je me dis que tey nii nii nii on a plus de stars mhm. que artistes quoi ah, tey la ñu gën a am star que artiste maanaam bon dëmb mhm. ay artistes dañu amoon quoi on avait des gens engagés ñi nga xam ne bon ñoom li doon def dañ ko bëgg dañ ko bëgg amour moo leen ko doon def loo en mais tey bon je me tam bon am na benn décalage bu mag mooy maanam boo seetee arriver technologie bi et consort mhm. surtout vi bu mu ñëwee. man mhm. je me dis que booy léegi sëggatuñu complètement ci gëm-gëm bi. Mhm. mais dañoo dañoo sëgg si business bi jaay bi quoi la ñu gën a. que bi moo toll foofu tamit. bon non. mais adduna bi dafa mel noonu lay. doxee léegi pourtant nag bon pourtant. boo fa basé di nga xaw a réeree mbir tuuti quoi. tu sais pourquoi. tey je me dis gis nga ji. comme li ñuy wax rek fu ndox doon taa dëmb boo fa demee ba tey fekk fa ay tepp loolu taxul mu indi changement ci game bi mën nga jaay. Mhm. mën nga jaay. mais nga respecté tam lu fi nekkoon. dëgg la yaa mhm. mais tey je me dis boo yaa ngi def li nga xamante ne nit yaa ngi koy seetaan tey personne n'en parle. Mhm. mais bu ëllëgee. di nga bëgg a wax fekk weesu na quoi. comme lal loolu bon déjà booy bindatuñu pour ñu waxtaan quoi. boo ils sont plus fun que créatif am bon. mais est ce que du fun bi créatif. nga est ce que bi moom mooy. fay tamit ji ji xaaral <laughs> ji gis nga bu ñu nee artiste rek. <laughs> créativité moo tax ñu naan artiste. dëgg la te tey tey par exemple tey. du ma ne numéro 2 mais numéro 5 ba numéro 100 ñoo fi gën a bëri quoi. comme tey copie collé moo fi nekk. Euh, copie collé moo fi ëpp que ñuy créer. <laughs> il faut ñu oser ko wax quoi. yee yow da nga gis ay artistes yoo xamante ni ñu ngi ci kaw ñu ngi leen di tudd. Euh, li li nga gis nii def ñoom ay copie collé la ko bàyyi du jeex. ah plagiat yi de moom bëri fi. <laughs> jool ma ja jool ma jool ma ja maa ngi ja jool ma ja <laughs> laaj par laa lay laaj rek luy différence bi. Euh, hip hop bu démb beeg bu tey bi non tey boo jëlee historique hip hop. Mhm. affaire de king dafa mës a nekk foofu quoi. dëgg la parce que première bi njëkk am ci hip hop. ante mhm. Karis One la ak MC Mm-hmm. ci lan la woon maa la dàq bind bind bi fii la nekkee mm-hmm. man maay ñun ñooy réel yéenay feegi mm-hmm. ci noonu la démarré ba ni mu ñëwee ci pak ak bigi mu am benn chaleur mu indi ci hip hop dëgg la boo xoolee pak ak bigi seen clash mal yi la quoi mu créé benn fën bu garaaw tey mu dem ba ci jay ak Nas boo ñëwee Sénégal noonu la fi ñëwee dëgg la fën la ñëwee quoi rapport jooju ne leen du du lii lii la waaw ah. mu indi slogan boo xam ne ne hardcore yor hardcore boobu Sénégal gangsta amu fi. Mhm. kër gi ñëw indi beneen ne gangsta rap. Mhm. mais tey ñoom boo xoolee gangsta bi ñu doon woote dem ak gangsta bi tey am na différence. parce que seen gangsta lañ dafa gën a neex que par rapport ak gangsta bi ñu xam. au vrai sens du terme gangsta. Mhm. léegi nga ñëw tey. parce que tey mélange bi ñuy mélange hip hop bi ci benn environnement. loolu moo tax tey mu am accessible ci benn jeunesse benn génération bi. les génération bi nag dañu dul comprendre. lan mooy musique hip hop. Mm-hmm. te la benn fotu beat maker la. ak fotu direction artistique yi la. beat may yi seen per si lan la si ban. doon parce que boo dee mélange da ngay ñeme li ngay def. Mm-hmm. da ngay xam ni hip hop dafa am norme am aspect. dafa am ay keesam quoi. voilà dafa am ay keesam. te mm-hmm. keesam tey. lu ne mu nga ko créé. parce que tey dañu naan bitu classique. mu mënoo ci tëgg trap. te pourtant loolu mën na nekk. parce que loolu ay kii la rek. machine la quoi. tey li ñuy tëgg bit bi ñuy tëggee eh, bi bit bi ñuy tëggee trap. mun mhm. nga cee tëgg bitu classique. bit bi ñuy tëggee drill mun nga cee tëgg bitu classique. Mhm. parce que couleur la quoi. te mhm. couleur boo ko leen parce que tey bu ñu nee tey exemple façon bi am léegi nii ñu ne tey euh, hip bi. sabar bi da cee bëri. waaw c'est parce que. sabar bi la ñu valoriser mu jóg ci kaw. am lu mu muur. mais yéen jaar bi am lu leen di déranger yéen ñi nga xamante ni tey mun naa ne yéenay déglu tey dama gis rappeur tey bu defee sampling salsa du ngeen bu defee rock jazz du ngeen mer salsa lépp mais su fi que mu laal mbalax rek tëgg tama rek tong rek ngeen commencé baax quoi seen xol di baax luy problème bi lan la. te pourtant 96. PBS génne na album. Mhm. am na tama am na riiti. Mhm. te pourtant amul defu defuñu problème parce que daas fun quoi. Mhm. parce que couleur la ñuy seet quoi. bu amee couleur ñu jëm ci ñu xam nga balaa mbooloo boo seetloo seen sound boobu noonu alal. Eh, da nga seen mbalax boobu noonu période boobu bëriwul woon biir bëriw amul woon classe yoo xamante ni dañ doon taxaw doon dal seen kaw quoi fi nga jumee mooy rab mbalax rab mbalax existé wul léegi rab mbalax existé wul existé wul mais léegi gars yi ñu ngi koy imposer non da nga bit bu ñu sampale ak tama ak sabar léegi sabar bi ëpp doole jaawraam ku si nekk sa musique am nga droit tuddee ko nu la neex waaw d'accord naa ñiy def rap di si def sampling bitu mbalax ñoom tuddee nañ seen yëf rap mbalax nangul leen ko quoi xam nga tey moo tax ma ne la boo nee hip hop. Mhm. dafa am norme. Mhm. hip hop amul lu ci nit di def te amul tur. dëgg moo tax boo nee. tey am rap la. jeex na waaw euh, dëgg la non non rap. Ah, euh, mais rap est-ce que du day oublier tamit <laughs> musique boobu tamit day màgg de faal. ah sa am na solo musique bi day màgg de. ah day màgg moom. Euh, dem day màgg kay lu leen déranger si loolu. waaw mais jili xam nga dafa am loo xamante ni tey jii dafa am ci Sénégal quoi. Mhm. gis nga bañuñu sampling mhm. mais dama jàppale ne da ngaa war a uti ay ingénieur de sound mhm. ñu jàppale la si mais munoo toog nekk un MC mhm. incomprendre di gàddu mic am noo démarré woon dem ba ci biir bàyyi loolu nekk si leneen évaluation am na wàcc concept am na mais bu ñu jaawale ku évoluer ak wàcc concept am yaa ngi ko évoluer mun nañ ko joxe exemple comme ci daara ji famille yaa ngi waaw tey jii nii mun nga dawal pusus. Mhm. dawal vélo dawal moto dawal oto. Mhm. dem ba dawal avion dëgg la kooku daa évoluer mhm. dafa rampé ba yéeg. première ba quatrième exemple. mais munoo xëy di dawal camion ñu xëy di la gis ngay dawal vélo kooku est-ce que évolué na. mais Samba Peuzzi de moom bu mu commencé safal affaire yi la commencé gis boppam de. Eh, bu mu wax évolué la wala lan la. bu mu wax ay wax Samba waaw waaw artiste. ba pare di réclamer rappeur yoo xam nga li artiste di réclamer rappeur. Samba Peuzzi nekk nekkagul artiste. su tax nga ni nekk artiste lu tax ñu naan artiste dëgg nekkagul. lan mooy artiste kon bu lan lan moo tax nga ni du artiste. waaw c'est parce euh, gis nga. non Sénégal métti na. <laughs> lu tax nga ni du artiste tey ku si nekk. ba ngay ñëw am na loo àndaale. Samba Peuzzi depuis album 221. Mhm. bu waa Reptile. Mhm. Ah, ba léegi nii dafa waroon bootu ci ñoo xamante ne nii dañ koy support ba tey waroon demul boppam. Shampeuz demulul boppam de. demul na boppam ba tey mi ngi reptile de. non mi nekk biir label bi. Ah. maanaam son nga xam ne moom da koy def à travers moom moom kese individuellement. Mhm. jotaguloon pour moom. non looy wax ni artiste bu nekk booy ñaan loolu ngay ñaan yàlla. waaw loolu ngay ñaan yàlla jiili man dama koy ñaanal mu gën a avancé. waaw mais xam nga lu tax ma wax loolu. Mhm. pour gën a am fu mu basé wu ëllëg. mais Shampeuz yi li muy def nii ñu ciy gis boppam brother. xam nga lu tax te musique boppam moom. Mhm. parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne lu fi jóg dafa am ñu ko yëkkati. Mhm. surtout mhm. te bu wàccee ñooñu. Sampez yéen ñi nga xam ne ay melomaan ngeen melomaanu hip hop bi xam nga di di déglu rab bu dëgër bi bu baax bi comme nu ko gars yi di waxee. yéen mënoo leen ko bëgg ñu si bëri boog mënuñu ko bëgg. non tey Sampez yi mënul def yow lu la neex parce que da nga xam ba. ba seexlu lu muy def quoi. <laughs> mais am na beneen public boo xam ne public bu large bi ñi nga xamante ni ñoom sax hip hop seen yoon nekk si. nañ déglu lu neex rek. dañ koy bégee. est ce que xam nga leen balaa nga doon xam li ma lay wax dëgg. Mhm. ñu ñëwoon fu mel ni concert boo xam te ne lu mel ni ay show ouvrier la. Mhm. wóolu ñëwoon ay hip hop flavor. sama posi bu yéegee wàcc. beneen mhm. rappeur yéeg lii tëb di dal. mooy ëpp fuuf eh, eh, ëpp fuuf bu sàmm pause yéegi xam nga tax. loolu nga foog rek. <laughs> waaw yow yow li ma a xam. <laughs> xam a garaaw loolu nga foog rek xam lu gën a garaaw di laaj nit loo xamante ne ni yow yaa am ni booy sàmm pause guddi yi ñu toll concert bu mu yëg gaay wuy si ko booy bu leen benn problème. Fat. ji king bi. ngaaka gis nañ départ ba léegi fu mu mm-hmm. toll tout le temps bëri na si ay saanam yoo xam ne fu mu toll day rek day wax ni mooy king mooy king mm-hmm. ba identité ba loolu dem ba nekk ci moom mm-hmm. ba nga xamante ni ñi ko xam ak ñi ko xamul sa bone ne king baaba xel yëpp dem ci ngaaka ba leen dip ñu nekkoon benn artiste di ko yëngal Sénégal yëpp respecté ko si talent bi mu am mais musul taxaw fenn na mooy king ñu gis yàggul dara mu def benn soo di réclamer king ngaaka ba leen di tamit di ko dëggal ni moom mooy king lan mooy problème bi king bi king bi king bi luy king ba ku nekk di ko xëccoo <laughs> naara bi jóge fële na king amu fi moom mooy buur xam nga bon loolu bu amee rek problème la si ñoom ah je me dis tam baaba kii nu mu tudd sax baaba mm. est-ce que king boobu bokkul si turam rek moo tax quoi est lu mu liggéey tamit ba mbedd mi def ko ko ah, bàyyi nag bàyyi bu ñu foyee suñu xel bàyyi booy liggéey ñu tax ñu doon king de guerre est ce que xam nañu lii king tam. ok yow lu tax nga ni booy liggéey nga ko blende mais attends attends xam nga tey ci game bi. Mhm. par exemple ku mu neex ne maa daa xarab. Mhm. ma loolu dama naan matricule la quoi. Mhm. matricule la tamit ci ginnaaw bépp bépp artiste. bu la neexee ne fii maa fi mën fëgal sa dënn. mais bon mën bon waaw mën nga mën nga mën mën nga nax sa bopp. mais mënoo nax nit nit ñu lay déglu. parce que ñun ñun mi nekk ci ginnaaw xam nañu lan mooy king. wax dëgg yàlla. booy daal tey boo doon joxe king koo koy joxe yow. amul king du ma joxe king. amul king non kay game boo gis am na koo xamante ni peut-être moo nekk ci kaw. fi amul king hip hop Galsen amul king. gaa nañ job xam ne seen hip hop jéggiwul nañ ko yokku waaw buñ naxante suñu hip hop demul waaye nañu job <laughs> nañu war a job tey bu taxawee laaj ko yow réew bi. dépp bu doonoon king bi na taxaw génnee soo xam ne mooy king. de baa ñu wax ko. non de baa bu dib waroon doon king ba bàyyi heure bi doo fi sa dib doo ko fi fekk yow. ci sama gars Bob Marley mooy king légende. Job li nga xam ne tey nekkul nekkul ci kaw suuf mais mi ngi dem au rendez-vous. ak Michael Jackson mais Job son mu yem Sénégal nga ne yaay king bi. non mais sunu game li wax ah game gaal seen non mais gars respecté wu ñu ñu leen non mais boo dem nag am na artiste boo xamante ni. mais nii nii nii nii pour am na problème xam nga dama la am na problème. Mhm. boo génnoon tey nga ne kan mooy artiste Sénégal ku ñu lay njëkk wax Youssou Ndour. Mhm. dañ waaw parce que au moins jégil na son yi jégil na euh, musique bi. Mm-hmm. yóbbu ko yeneen frontières yi. dëgg la mais fii gars ku fi jéggi woon dem Europe mu ñëw ne concert laa demoon. Mm-hmm. gesul nga xool mm-hmm. non. majeure partie dañ leen invité ah. ci benn baar lay dem jouer ñëw sonal nit ñi ne mu demoon concert Europe sonal nit ñi parce xam nga lu tax. am nañu complexe pour wax nit ñi dëgg. c'est les gens ne te disent xam nga ils te disent ils te diront jamais la dañ leen nëbb dëgg bi. c'est xam nga la moo fi ne naxante di bi. dañu bàyyi loolu ñu joob dañu war a joob jël suñu hip bi yóbbu ko feneen. Mm-hmm. dëgg la jël exemple ci dëkk ñu gën a wala naajee yi tey fu ñu toll. Mm-hmm. mais ñun ñun ñun naajee lu ñu am est-ce am nañ ko. mais ñoom est-ce que seen musique nekkul seen état da see jàpp bi ñun ñoo gën a riche leen lu ma lay wax dama ko xam. parce que nu mu dee dee def naa ak Gambie jàng naa fa instruire xool gars dem ay par pas mal de village gis gars lu ñuy joob. Mm-hmm. kon tey loolu buñ ko ragal. mais tey boo fi waxee ñu ne la non mbala. mais mbala bi tama yi dafa bokk ci instrument musique rek mais du mooy mooy loolu moomul musique. mais Nigéria moom duñ seen moroom xëy na peut être seen état lu mu jàpp seen musique a tax xam <laughs> ci li nga foog <laughs> ak Sénégal wala Ghana ak yeneen dëkk yi ñuy faral di méngaleeg Sénégal quoi. est ce que man mun naa wax ci hip hop. waaw man ci hip hop laa wax quoi. man damay jàpp ni Gambia. Mhm. musique urbaine la. Mhm. waaw jàpp di musique kii Nigeria. Mhm. musique urbaine la. dëgg la mais ñun hip hop la ñuy wax. man boo la boo waxee ci hip hop ma wax la ci hip hop quoi. dëgg hip hop la bu gaa di jaawale loolu tamit. voilà parce que Nigeria defu seen musique boobu loolu. exemple jël nga Samba Peuzzi. jël nga kat mais tey album yi wax ñu ne ñi naan la kii rappeur la. lu ci bëri musique urbaine moo ëpp seen sound. dëgg la après day jël ne kii rappeur la. Mhm. c' est parce que jëfinu rappeur lay def ci biir sens parce que dañ la mën dañ la rappeur. Mhm. bit bu tegu ak nu mënta mel. Mhm. war nga cee mën a rap mais boo xasee ba ne yaa ngi ci mouvement hip hop. dafa am norme boo xam ne moo la tënk. léegi loolu bu la tënkee nag dafa am loo xam ne yow boo ko dee def après da ngay génn sa da ngay génn concept hip hop. donte yow amoo concept. parce que booy ñi amuñu concept. mais li nga bokk muy hip hop te nga koy réclamer di dem ci émission hip hop yi yow loolu. hip hop moo la ko jox quoi. Mhm, dëgg la est ñoom leeral ni bu ñu demoon ci émission bi ma la xamante ni public bu ñu soxla public royal bi nga xamante ne moom mooy jënd album. moom mhm. mooy moom moo net bi di hip hop bi ñoo fa ah, nekk too leen ci net bi ah booy yee fay nekk de. sa xalaat yow rek di jënd ay jëndkatu CD sa CD amatul. jënd ko CD sa CD amatul. cassette amatul mais ñu suñu léegi booy yi ñooy streaming. suñu suñu voilà ba tey. sa <laughs> bi am hip hop mhm. la waaw am ci yenn yi hip hop mhm. xam hip hop la mhm. tey boo xoolee mbedd bi même tey benn chinois bu solo solo hip hop sax da nga naan kii solo hip hop la sol parce que hip hop mooy message boo xam ne la quoi colinam colinu la waxinam waxinu universel parce que waxinu mbedd la quoi yaa ngi comprendre léegi nag loolu nag moo def charme hip hop parce que bañ ko jëlee Brahms bay bay tas ci àdduna bi noonu la demee parce que dafa ñëw bu def ko format documentaire affaire commencé law ci àdduna bi mhm. parce que loolu la baaxoo parce que dafa am loo xam ne style xëya la quoi yow la sa mhm. bopp yow loolu ngay def bii yu mhm. mu doon loo xam ne day dafa créé maanaam benn fukk jeunesse parce que moo tax ma naan hip hop conflit de génération mais dañuy seggi il faut animateurs yi ñuy seggi il faut ñoom ñuy xam parce que tey boo nee gaal seen power kee ne black label kee ne hip hop flavor am na lu maanaam am na lu lay tënk quoi tey boo tegee musique urbaine duñ la wax dara mais boo nee rap wala nga ne hip hop Mhm. non am na lu la tëj. waaw am na lu la tëj. voilà mais boo xasee ba ne black. Mhm. wala nga ne real one. Mhm. yow maanaam yow bu loolu neex tegal quoi. waaw dëgg la de lu bañ kay moo nga tuddee si émission réel black wala réel. kii rap lii wala rab laa waaw te pourtant ñoom ñuy wax noonu hip la ñuy animé. rap la ñuy kon xam man tey gaal seen paa bi may def nii tey bu ma jéggi jéggi saan di def leneen tamit du garaaw. waaw kon naa fees ah, naa fees gis dañuy dugg quoi. ci yéen animateur parce que yéen yéen dañuy gëmloo li newul ci yéen. comme lan parce que yéen a war a yor tabe bi di seggi. Euh, ku génnee lu moolu nga ne ko eh saa bu génnee projet am jox la ko bu naay see dawalal quoi. wax ma la parce que yéen ñii ku leen ah. topp tey jii ku leen topp am na yenn boo yoo xam ne duñ leen tegati a. ma yam <laughs> lu tax loolu. parce que dañuy dénaturer hip hop bi dañ koy jox benn environnement parce que lu ñu soxla ci hip hop mooy être hip. être pertinent et mise à jour. lu tax Pesi di leen déranger lan la. non c'est parce que booy Bastoun yàlla na carrière yam fii. booy bëri ngeen problème non xam nga yow da ngay jàpp ndax dañoo chic. que dañoo dañoo xam dimension. spirituelle mais Bastoun bokkoo leen fi nga nekk Bastoun mbalax lay def moom day taasu day kebet. ba pare nga bëgg di ñaan yaa ngi ñaan carrière Bastoun yam fii. sa bokkoo leen monde bi ngeen nekk. Bassoum lu mu la def man ak yow ñoo bokk li ñuy wax. Mhm. mais dafa am loo xam ne ñun yàlla daf ñu ko dégg parce que ñun ay xalifatu fil ard lañ ci kaw suuf. Mhm, képp ki nga xam ne da nga yor benn pouvoir boo xam ne da ngay dénaturer suñu génération bi nga xamante tey instant bi ñu ngi ñu ngi yàq dëkk bi. Mhm. coronavirus bi li ci yàq bëri na. tey hip hop li ñu ko xamee mooy depuis jamonoy 90 ba léegi. represent mais tey xool ci benn benn itam ay man maay bi kii mooy king loolu ban sens la am. amuluñu chance quoi parce que teelootuñu ci monde boo xam ne dañuy gisoo suulu na bu yàgg mhm. esa amuluñu kenn war mhm. lamb ji la bëgg a andiwaat pour pour fay benn kii bi pour fay benn benn coow vaccin yi quoi loolu hip hop bi ci yooyu lañ koy xaar être hip pertinent a mise à jour quoi mhm. fa la affaire bi toll am na solo soo <laughs> daana solo euh, yaa ngi dëkk saat nekk Grand ak Géejawaay sa Géejawaay tey buñ ko waxee ñoom Kalif ñi ngi fa ñoom Milka ak ñoom Ngaaka Blindé nekk hip hop bi foofu. waaw ah, mais bon xam nga Sadio tey jii nii. te ñuy waxtaan quoi. Euh, Ngaaka Blindé. moo njëkk Dip Doundou. waaw ah, moo ko njëkk a fël waaw. xam nga li ma la wax. Mhm. Ngaaka Blindé dafa am ñu ko doon xam avant. Mhm. Ngaaka Blindé dafa ñu ko doon xam avant. waaw. yaa ngi comprendre. Mhm. que tey. dëgg la parce que tey jii boo musaan di dem concert. bu bu ñu la nee Ngaaka Blindé ñëw du fa ñëw. ñi am âge par exemple seize ans jàpp dix huit ans. duñ fa bari. dëgg la parce que dañ naan ngaa ko ñëwul. Mhm. yaa ngi comprendre mais depuis mu fële deux mille deux mille onze deux mille douze. Mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. andi andi andi yaa ngi comprendre mooy jamono weex wax naan Waly bala sa xel mi def ci xam-xam dañ lay nax. dëgg la loolu lañ loolu lañ soxla woon ci moom. yaa ngi comprendre muy dem ba dem ba deux mille quinze dib ñëw. andi bés ni ki dëgg la yaa ngi comprendre. def ci ay sang lu ñu tuddee dëgg bi yaa ngi comprendre sama jeunesse ay sama jeunesse mm-hmm. ay est-ce que di nga rëcc xam nga yooyu noonu xam ay Paul Pogba mm-hmm. xam nga yooyu yëpp mais tey jii ni Dip depuis Dip quinze la gëj a def album saal album bu mujj nag xanaa dégg xanaa déggu ma la ay teel kaak ay yooyu yëpp dama ne la depuis Dip quinze ans six sound EP yooyu mu defoon noonu mm-hmm. la gëj a def album loolu rek motoon na carrière am fa la waroon yemale bagage yi quoi bu ko fa yemaloon xoolal ñëpp jël doy na bu ko neexee li mujjee génnee nag. xanaa déggoo li muy mujjee génnee. yooyu muy mujjee génnee ñoom ñëpp nag ku ci nekk année bi nga ko génnee année boobu lay yem bis topp il faut nga génneewaat leneen loo xamante ni di nga jéem a taxawaat parce que am lu tax du ñu jox pour loo xam ne au moins dix ans nit ñi dinañ ci di dund ñuy cons hip hop. mais tamit est-ce que tolluñu fenn foo xamante ni hip bi li nga ko jox dala koy delloo quoi. te que boo yooyu tamit ba pat na daj na lu ne seen xaalis dugg na ci hip bi tey dafa jot tamit mu delloo leen ko quoi est-ce que du fa la booy toll. waaw mais tey jii nii loolu fi mu ne nii yàlla moo fi nekk ko mhm. nit moo moo sa bopp. li ngay uti yow yàlla dafa laa sant xëyal uti rek. Mhm. mais yow si moom lay jóge dëgg la xam li ma la mhm. waaye tamit nañ gëm ne ñoom dañoo nekk réew boo xam ne dañ ne Serigne Touba daf fi tëdd maam El Hadj Malick daf fi tëdd bu Kunta Ndiassane et cetera et ñoom ah. bu ñu fàtte ne ci loolu nañ te ku ci nekk ñoom ay gor nañ ay doomu gor a leen jur xam nga man tey jii nii nii nii sama papa bi nga xam ne moo ma jur ak sama yaay. Mhm. yaa ngi ko man waruma nangu ñoom ñu gën maa gore. Mhm. parce que ñoom ay doomu adama nañ comme man n'est-ce pas. Mhm. yaa ngi ko mën ñu sacrifice bu ñu def yëpp ba jub. tënk ci lu baax ba am ma man. man noonu laa war a sacrifier sama bopp tam nekk ku baax ba am keneen. dëgg la loolu la société di jëriñ. am na solo mais tey jii nii bu dib fële fee ne maay king. ngaa ko fële ne maay king léegi après bu ñu nee ñoom ñooy king bi léegi musuñu felan sax ci game bi. waaw mooy mooy maay papa gaay rek waa xam nga xam nga xam nga tey moo la <laughs> loolu la mais pourtant nit dof moom mi ngi taxaw fi naan seen baay ñëw na. ah waaw loolu moom ku si nekk am seen baay ñëw na man dem naa concert ba taa nit dof noonu lay dugg see. waaw moom boobu yaa ngi comprendre mhm. mais imagine toi tey Dip. Euh, saan bi mu mën a génnee nii nii nii euh, monsieur Banaaru Laay. Mhm. yaa ngi comprendre. Mhm. man je me dis que. saan bi <laughs> man pour man je me man saan bi pour man sax. datam jotul. xamulu tax ah, lu tax parce que nga xam belee ne génnee na album mhm. Samba Peuzzi génne album Samba Peuzzi génne album ñoom Leuze gaay génne yaa album mhm. mhm. nañ ne sax ci ñoom ci bi ñoom dégguñu fa yeneen album baal musique urbaine bi booy rap la ñuy def bu leen génnee booy si rap bi waa ñëwal déglu ma yaa ngi comprendre léegi tey jii nii bi sax léegi mu dem léegi nag ngaaka génnee na album boo xam ne benn sound ñaari sound sax laayo lim yoo xam ne bi ñoom nga ëpp ëpp ëpp yoo xam ne nii moom leen ñi di déglu muy sound salam bi bu muy woy ci kaso bi. waaw ak beneen bu king baaba bi. boobu it la. yaa ngi comprendre. waaw lu lu gëj a am nag. léegi moo xam dara mm-hmm. pourtant ngaa xam beneen avant muy dem kaso. Mm-hmm. loolu mu wax ci sound kaso boobu xam ne ne am na ñu ne kaso ñuy dund lu mel noonu. mais moom dundu ko woon. non dafa nag maanaam tey ji dafa dem. Mm-hmm. dund ko waaw. moo tax bu koy expliquer si lay gën a yombee si lay gën a leer mais avant mu fay dem. avant mu fay na rapport yi fi nekk di bind sound prison. yaa ngi comprendre te ñoom demuñu prison. la yaa ngi comprendre dëgg tey jii nga xam beneen loolu mu nettali ci sawnu salaam boobu noonu. Mhm. moom moom ku ko tegaloon kaamil du waat ne moom. avant muy dem jël xamul ne am na ñu ko fay dund. non peut-être mun na ko xam nii rek mais. dund ko woon quoi nga dund ko pour. nga mën a xam lu ko ne dëgg parce que mhm. fa nekkoon soxla nañ ku leen baatal. Mhm. parce que hip hop ku amul bët. war nga ko xoolal ci say image mhm. ku amul làmmiñ bu mu waxee gëm maanaam yàlla dafa tëj gémmiñam dafa mhm. muuma mhm. war nga xool noo noo noo koy waxalee dëgg la ko ku amul nopp maanaam du di dégg moom war nga ko jox image ak lu mu mën a comprendre tey jii ni moom mi ngi noonu de génnee album album bi am ñaari sound yoo xam ne moo gën a nekk it te moom ci album bi dégg naa fa ci sound boo xamante ne ni moom man xaw ma tey jii su ma ko noon laaj dama ko naan lan moo ko dugal ci parole boobu ban sound la sound bi mi ngi wax naan mooy ba muy wax naan xaw ma ñoom lëg yooyu non mooy bi muy wax naan euh, ñun gëmuñu charia te charia du sarabiya dégluwoo ko yow. waaw déglu naa saan boobu boobu boobu xam naa saan bi nga bu baax. waaw pan mais lu tax loolu. waaw loolu après loolu ko dalalee dina dina si yaatal <laughs> loolu mënu ma si wax. <laughs> ah léegi léegi nag tey nii man dama jàpp ni Dip. bëgg bëgg a wàññi ampleur bi album Ngaaka bi am. Mhm. au moins moo tax mu génnee musiba naaru la. mais jotagul du pour le moment. ah ok Fat léegi lan mooy solution yi émission presque. léegi luy solution yi. bon ginnaaw bu ñu waxee problème yi fi am ba pare. léegi lan nga gis ni moo mën a avancer looy Pape Galsen. bon en fait euh, balaa a appuyer. sama collègue lu ma wax en fait. Euh, gis nga mhm. amuñu déjà amuñu concept. Mhm. te concept amuñu concept. Mhm. mu fi mais ñoom amuñu concept. te déjà tam amuñu plan de carrière. parce boo boo boo seetloo loolu mooy maanaam da ngay tey ku génnee album. gaa lu ñuy def dañuy wuti nu ñuy contrer album bi. Mhm. wala ku génnee son ñu wut nu ñuy contre son bi. Mhm. loolu mooy maanaam ñàkk plan de carrière mooy waral loolu quoi. Mhm. comprendre nga. te déjà dañuy woote game mais maîtriser wuñu game bi. fii Galsen dañuy woote ne hip hop bi game la dëgg la game la mais maîtriser wuñu game bi. waaw booy ah, solution bi léegi euh, lu may indi comme solution mooy maanaam. gën a ñaax gars yi. muy borom studio yi muy artistes yi. comprendre nga. mooy ñun mélomanes yi gars yi nañu gën a yokk job ñu delluwaat back to the roots xool. xoolaat définition yi toppaat définition yi gën a gëstu xool lan mooy hip hop. parce que ñu bëri ñu ngi def hip hop te xamuñu lan mooy hip xool lan mooy hip ñu xool lan mooy tey ñu xool but xam nga ci but bi dafa am norme quoi nga jàngaat norme yi. maanaam mélange bi day day normal quoi xool tey musique bi fan la toll nga nga am am am am am bët am aperçu bu baax ne fii fii la toll fii laa koy yóbbu. def sa plan de nga job si quoi. jaajëf jaajëf solution yi. yow loo gis ni moom moo mën a avancer loo si hip hop. li ñu mën a avancer loo hip hop mooy ñu seggi. Mhm. parce que animateurs yi. Mhm. nekkuñu benn. dëgg la rappeurs yi nekkuñu benn. Mhm. te il faut ñu nangu nekk benn pour créer benn BET Awards. tey seen Hip Hop Awards am na. tey waaye yi moo ko teg. yow da ngay def da nga ko doon def Lamine Sène da ko doon def. keneen ak keneen da ko doon def. ku ci nekk yor yor nga sa koo xam ne moom mooy jël sa kii raw gàddu gi quoi. dëgg la parce que da nga créé sa loo xam ne moom defoon loo xam ne benn la. Hmm. tey bu ñu nee kii instant moo yor. affaire affaire kenn du wedd parce que nekkuñu benn dëgg te hip hop ba mu daloo sol ba léegi hmm. noonu la demee problème boobu la na voilà il faut moo ci jaar yoon après arrêté non parce que pendra waaw googu moom. <laughs> voilà yaa ma gën a xam. <laughs> daara loolu. <laughs> yaa ngi comprendre parce que dafa am daf ku nekk dafa am style boru dëgg la dem na ba xam ni instant yi rappeurs yi. Mhm. doo fi ñëw jox leen trophée da ngay teg xaalis. boo tegee xaalis dañuy rey seen bopp. affaire yi loolu il faut ñu seggi. Mhm. il faut yéen animateurs yi ngeen nangu toog ak grand yi. Mhm. hip hop seen amul Godfather. te boo demee boo demee États-Unis dafa am ay Godfather ñoo xamante non fii am na fi non jojo yat fu Godfather la non xam nga <laughs> jojo moom bàyyi moom la noonu bul xool bul xool non xool li may laal quoi essayé dama bëgg a la sama yat fu non loolu non Galsen amul Godfather quoi <laughs> non bay waaw essayé parce que grand yi dañuy taxaw naan booy yi li ñuy def léegi te xale boo ko dee gàggati fekk mm-hmm. ko ba ci terrain bi mm-hmm. nga jàpp loxoom ànd ak moom di jóg ak moom bu jógee nga ne ko du nii wàccal lii defal nii il faut ñuy respecter nit ñi seen carrière defar mm-hmm. maanaam nit da nga koy defar ak carrière am il faut ñuy jël artiste am nga talent mun nga rab kaay yi la moo desee Dr Dre ni mu def euh, Kendrick Lamar uh-huh. ci mbedd bi loo ko fekk xam ni booy mën na rab am na talent kaay loo def mën a baaxul nii ak nii nii ak nii. Mhm. bi bi gën a bon bi mu yaakaar ne moom bii baaxul boobu la docteur doon génne te boobu moo ko def moom kenn Lamar la kenn Lamar la mu nekk. émission bi jeex na nooy tàggatoo. waaw dara sant waaw di gërëm yàlla quoi parce que. <laughs> yii mooy jaay Ibrahima. <laughs> bëriwul bariwul bëriwul lu ñuy lu ñuy kii quoi mais c'est première fois ñu def ko. <laughs> waaw di sant yàlla waaw di sant yow di sant Fat. Uh-huh. waaw moom sama collègue la mais concurrence la ñu quoi maa ngi waaj a ñëw. yaa ngi waaj a ñëw dal ci kawam doo ko may solution bi mën naa ñëwal solution ba pare nga tàggatoo waale ñu. waaw bon man solution bi may joxe rek. mooy ñoom. Mhm. nañ dem gën a gëstu ji. Mhm. tayaluñ tayaluñ de. Mhm. nañ te nekk nañu ñu xam mais dañoo sonalu seen maayin. dëgg la nga ñoo ñoo ñu mel ni Kalif indi si faay. ñoo ñoo mel ni tey jii nii euh, Zendeng. mais tey jii nii ah, imagine toi imagine ku mel ni Kalif. Ah. def na loo xamante ni tey ba hip di ba hip hop Galsen di dem bañ naan ni àdduna tukki na. Mhm. tey du mus deñ parce que da lay wax loo xam ne bii nii yow dañ ciy dund par force. Mhm. imagine toi dama lay jël benn sound. Mhm. mooy bu mu def featuring Koura Missane. yaa ngi comprendre. Koura Missane boobu du Ndoumbelane bi. non boobu bokkut ak Ndoumbelane bi. Ndoumbelane bi ci lay waxee naan Euh, moytul mën nu melaan àll bi dafa bari jaan toog wéttali sunu tante Marisane mhm, waaw yaa ngi ko waral bokkut ak bi melaxel bi melaxel ci lay wax ni troisième couplet bi laa lay jëlal parce que mhm. temps bi quoi mhm. mu ne 2014 jàpp 15 mission bi perfectionnel perfection biir passion di promettre professionnel kaay jege ma jege ma xool kaay ma yóbbu la beneen école bu gën a ba cóol du gën a ba cóol ndax dama yàgg rëdd di rab mhm. yàgg kepetu makate léegi du mag mhm. dina ba de base de données bul déconné man yoruma bagaasu gone mhm. sa son bi doon la te doon nante te lii doon la du doon nante gars yi dañu bëri te ñànguñu bëgg a tari te jànguñu soobu ci rag bu dul jeex te diina pari te ànduñu rab toppandoo lu bari mbokk di tari xanaa dang ñu bëgg a jommi ni fari bu ñu buux ci géejub neen dumati leen. Ah, ñun loolu lañ soxla. Mhm. parce que tey jii ni ku ma boole ku ma jiitu sax ma dumati leen jëlal ñaar. Mhm. buñ ko boole ñu ko jiitu ci hip hop bi mu duma leen. Mhm. te moom tamit aussi buñ ko boolee booy fi nekk di bandi bandi mu duma leen. waaw euh, Kalifa Xumaan moom ba tey ñoo mën booy léegi wuy ma. Euh, uh-huh. tàggatool mat na. waaw maa ngi bëggee waat gars yëpp. xam di wax ne tamit xam nga ñoom. génération bi Kalif <laughs> <laughs> <laughs> wax naan message. tey jii uh-huh. bu ñu dee wax message nañu wax ne ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk te ñoom nañ ne ñoo jàpp game bi. Mm-hmm. ah nañ leen nañ dañ leen di ñaaxaat. Mm-hmm. ñu gën a defaraat seen taxawaay. Mm-hmm. parce que tamit am na ñu nekk si prison na ñuy xëy du ñu ndékki du ñu añ du ñu reer. fii sunu man jaar na fee yaa ngi comprendre sunu yaay kii yi nga xam ne dañuy nekk si mbedd bi yaa ngi comprendre suñu paa yi nga xam te ne amuñu ku leen wallu yooyu tàggatoo jaan waa tàggatoo xam nga man que ji dama bëgg ñi nga xam ne amuñu baat ñu <laughs> yaa ngi si rajo di animé waaw voilà loolu la am ci lu mm-hmm. fan nga tàggatoo waale benn yoon tàggatoo rek eh, man moom bon sama tàggatoo mooy di nuyu waa Equivox TV. franchement seen déplacement bi ñu ngi koy rafetlu dëgg bu weer bu wér. Mhm. yow jëli tam maa lay nuyu bu baax. gars yi xam nga kontaan ci yéen quoi franchement. Mhm. jaajëf merci beaucoup. jaajëf sama gars yi di leen jox rendez-vous beneen yoon tey nii la demee tey moom dama seet si woon melomaan yi ku si mel ni Dia Ibrahima Fat Big Santos fas yéene waxtaan problème yi si hip bi ak solution yooyu yëpp waxtaan nañ ci jox leen rendez-vous beneen yoon jaajëf sama gars yi gaal seen sama game Equivox TV for life.